bokki rew mi ak aduna bepp mangi dikat fi ci dekk bu tedd bi ci kaddu bi may wax nga xamne kaddu euh, Serigne Touba Cheikh mohammedul muntakhala te kàddu bi li ko ubbi mooy watasimu bi hablillahi jamian wala tafaraxo bu doon lu ñuy tëj innamal muminuna ixwa fa asliho bayna axawaykum loolu moo jógloo sëñ Muntaxa te moo jógloo woon ay waajuram te looloo jógla woon sëñ eh, yont bi sallallahu alayhi wa te loolu la taxoon yàlla bindunu te sunu jëwriñ di sëriñ Touba wax ne fala tuhaado man raaytum faaho yuxriju la ilaha illallah kon responsabilité bu rëy boobu nag moo tax lii may yëkkati kàddu du wax di waxaat ndax ca mujjug waxi demb ja eh, eh, Cheikh Basir waxoon na ne bu ko sëriñ bi joxaatee ndigal dana wax kon nag eh, li indi mbir mi mooy demb dégg ngeen Cheikh Mahamadul Basir ci ndigalal sen dal di murid ci teewaayu seigne Moussa seigne Moustapha Basir mu yekati won ay kàddu ndax yi xew ci jamono ji ak ciow yi duma dugg ci lam waxon ak lam waxon murit yi ndax mo yore won kàddu murit te mom lañ wax la won te lam doon waxit sëriñ bi moko wax la bim ko waxe nak mu mel ni dafa yëngal dara ci réew mi wala kàddu yi sëriñ bi la taxoon mu jóg ñu juutal ko waaye li taxoon kàddu yi sëriñ bi jóg rek moo tax may wax mooy loolu ma jiital e, wane ne moom day lii yàlla teg ci loxoom muy toog teg ci nekk ci jataayu yoonu murit fa séene wu cee def dara dara dara loo xam ne dana moy ndigalal yàlla ak jottali yonent bi sallallahu alayhi ak ndénkaaneel sëñ Tuubaa li nga xam ne moom la yor looloo taxoon bi coow li baree mu yëkkati kàddu wane rek ne eh, na ñëpp dal te defaraat jikko yi te jéggilante teel rek tax te wane ne lii xewoon bërki demb ñu xam ne jubluwul moom génne kenn ci yoon wi walla muy daq kenn ci yoon wi wala muna kib julit la wala don tub julit wala murid la ndax murid la comme murid yi mom te li li Cheikh Basir waxon moy am murid bala nga don murid da ngay don julit mom nee ci bopam la ko njëkke té lolou leer nañ la kon nak ku ñew don murid bopam la kon jublu ci Idriss sek wala mu jublu ci kanen serigne bi politigul politigluwul mi ngi ci ndénkaanal serigne Touba lim ko denk rek mouride kon nañu ko dégge nonu te japp ne serigne bi fofu la len neklo te du du jël mukk len lo xam ni du jangalem serigne Touba len ko wala mu def bu fekkee dañ leen a tooñ jéggale leen bu ngeen tooñee jéggalu leen ku tooñ jéggalu nag jéggal rekk a ca war sëñ bi daal foofu la ne mu ngi nuyu mboolem kilifa yi diine yi nag ak kilifa yi àdduna yi ak fu fi waay mën a ne ci réew mi bitim réew di leen wax ne jàmm jooju daal moo ne ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa